tenté le conseil constitutionnel ne vous a pas suivi mais ci biir mbir moomu yëpp est-ce que du candidature bi leen poser problème est-ce que ce n'est pas la candidature de Bassirou Diomaye Faye déedéet amuñu problème amuñu problème politiquement parlant amuñu c'est pas une candidature qui vous dérange non la coalition Benno Bokk Yaakaar amul problème xamul tax amuñu problème euh, donte ne man bokkuma woon bon euh, euh, benn Bokk Yaakaar avant PDS laa bokkoon mais soo seetloo élection yi fi amagum yëpp depuis 2012 ba léegi coalition benn boo ko yaakaar dem ci daf ko gañe yenn saa yi gañe bu metti la yenn saa yi gañe bu ndaw la euh, may wax ne dafa am lu ko yàlla may euh, bi Sénégal amee ba léegi c'est la seule coalition qui a duré autant de temps nga xam dañu dem ànd gañe ànd continuer di gouverner depuis 2012 coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi fi dans l'unité parfois malgré les difficultés et les aléas de la vie politique la coalition Benno Bokk Yaakaar est là avec quand même des partis majeurs parce que parti yi APR parti la boo xam tey kenn mënu ko xeeb c'est le parti hégémonique d'accord ak nga am ci biir AFP AFP c'est pas un parti mineur nga fekk ci PDS euh, astafurla euh, PS PS du parti mineur suñu parti donte ne parti bu bees la ak Oumar Sarr dafa am fu ñu jógee aussi dafa am fu ñu fu ay flanc yu ñu génnee nga jël euh, ñoom euh, Balde nga jël la LD nga jëm ànd jëf Landing Savané et cetera et cetera donc du parti ay parti cuune yu fa dajee donc c'est une c'est une c'est une organisation qui qui a un appareil un appareil qui a participé à plusieurs élections et à chaque fois que cet appareil a participé à des élections cet appareil en est sorti victorieux benn ñaar c'est personnel politique qui est là qui est là euh, euh, euh nga fa Moustapha Niass kenn du wax ni cuune la jamonoy Senghor la yàgg na mag la waaye mag mat naa ba cim réew ndax mag dina toog di seen lu xale bu taxaw dul gis amatul benn ambition amatul euh, benn projet gannaaw gunge daf ñuy gunge d'accord mi ngi ci ak ñeneen maam Bounama Sall ma nga fa Landing Savané ma nga fa Oumar Sarr ma nga fa Ablaye Balde ma nga fa Macky sal ma nga fa ak kaneen ak kaneen ak kaneen Modou Diagne Fada ma nga fa Ousmane Ngom ma nga fa ak kaneen ak kaneen ak kaneen ku lim juum donc nous avons un personnel mënuloo am un appareil aussi important euh, ki qui constitue l'union de plusieurs appareils donc chacun de ces appareils a fait sa preuve ak un personnel boo xam amul beneen coalition bu am personnel bu nu toll personnel bi am na ay mag am na ñu yemamaay am na ay xale boole ci nag maintenant nous avons l'habitude moi je donne mon cas je suis dans l'activité politique euh, xeebu bu buñ ma ko xeebal depuis au moins cinquante ans maa ngi def politique sans interruption loolu aussi du lu ñuy xeeb te am naa ñoo xam ñoo mu ci jiitu am ñoo xam maa leen ci jiitu donc mënoo am loolu ba pare nga am looy ragal wala luy tiit waaye kuy xeex da ngay fagaru di nga gis nit boo man ma kenn suq gis nga tey fi ñu toll nii amul suq amul dara xeebuñu kenn képp ku ñëw dañuy xeex ak yow. fas yéene dugg